Simba Sila berkasi moi sama sila Pada tiga Dok Aziz Mandai yang lain Wen sering Desa أتزعم الكل في المضارب نمرة في ذاك حقا مدينة كذا الجواب da ngeen di da ngeen di fitos rek ba ba mu riir wala ma bàyyi. fitos leen. Babacar Si mooy sama wasila. Babacar To every fail Mandi yolai Wayal sering pawakar Anangnya Tas halma satu Minal barari sahigama Tuhti tawakir Aswajan li jadwa Wakur gudunar nalla Baksak babakar Simul sama wasila Mampai sita datika am na ñu fi bëgg sëñ Babacar waaye oh waaw waaw waaw xam naa ni man yow laa faral Babacar Si mooy sama wasila Babacar du Aziz Seen man de yow laay wéyal Sëriñ Babacar Si ak za amal ko fil mazaari na mira si daaka xaqan مدينة كذا الجواب قربي مرمى داكا da ngeen di da ngeen di fitos rek ba ba mu riir wala ma bàyyi. fitos leen. Babacar Si mooy sama wasila. Babacar. du Aziz Seen. Mandiola wayang sering bawakan Anaknya pergi sering bawakan Tas satu Minal barari sahigama Tuhti tawakiru Aswa jali jatwa Wakur gudunar nala Baksak babakar simu Sama wasila Mampai sita tiga. am na ñu si bëgg sëñ Babacar waaye oh waaw waaw waaw xam naa ni man yow laa farala